may yegg nag ci lu ma ñor dama lay laaj centre euh, artisanal bu Bambey kañ lay fonctionnel monsieur le ministre ma bëggoon waxtaan ak yow ci Ndéb sa Ndéb sa xaw ma ndax monsieur Diakhaté mu ngi fi ndax mooy directeur artisanat ba léegi maa ngi lay nuyu monsieur Diakhaté tuuti rek kon laa ciy wax parce que yow xam nga Ndéb euh, 1985 lañ ko créé benn sénégalais bu gëm boppam xam lan la dem wuti dellu si di signifié muy sëñ Babacar Mbaw mom moko ko créé ànd ak jabaram muy tubab nekk nationalité suisse kooka ñëw indaale njabootam boo seetee 5 documentaire biñ ciy def Vincent Delorme mi nga xamné ne moy def documentaire bi man mi mako sponsoriser sponsorisé pour mu jël la nationalité sénégalaise ñu ñëw di ay Baye Fall monsieur le ministre boo demee may sa di nga am le modèle type de Baye Fall

loolu yep am ay débouché galerie bangi fi ci euh, Almadi ñu tuddé ko galerie mam Samba maag jaxate ño fa nekkoon biñ koy inaugurer monsieur le ministre Ndem Meïssa nekk loo xam ni defar nañ seen ay structure yo xamni au niveau économique au niveau social am nañ seen dispensaire da fay défar sax combustible à partir de coque d'arachide motax mané le ministre bo andal bo démé amna lu muy def Ndem Meïssa ñu ngi def ay culture maraîchère waye nak am nañ soxla té nak ay baye fall lañu dañu nek ci liggéeyu sëñ Touba fii ñu toll ndax fi Cheikh Ibra dajé won nak sëriñ Touba ngi gis Bamba mom la ka Khalif général des baye fall sant mu dem Mbàkke kadior ba mu démé Mbàkke kadior dafa ubbi benen centre recevoir fa 200 jeunes bo xam euh trois yi la leen di def lo té lolu mu ngi won ci sen ministère c'est-à-dire formation professionnelle initiation au français ba paré jàng alcorane Euh, kooku nag defaloon nañ ko ONG ma di ci gërëm sama càmmiñ Cheikh Tidiane gaajo parce que bi ma bu ñu ko defalee ONG ma agréé ko ba pare en tant que ministre en charge développement communautaire dama ko proposé mu defal leen accord de siège parce que ñoom li ëpp ci seen soutien Suisse lay jóge ak France am nañ des partenaires du Nord mais modèle boobu boo ko amee lan la gouvernement bi war a def ñoom yomb dañoo gungee monsieur le ministre mu nekk sa région parce que mënuñoo bañ a wax fàttali la région de Diourbel la sa région la te modèle la boo xam ne mën nga koo wone bu boobaa da ngay am da ngay am lay monsieur le ministre nous sommes lañu euh, mat euh, produit yi ñuy jaay ci galerie Mame Samba am un label international du commerce équitable ce li ñu bëgg tey moo le problème réfection bâtiment yi dañu obsolète 1985 neuf renforcement capacité de production bi ku leen dimbalé waatoon ci ay machine dinañ jëlat parce que ñom dañuy freiner exode rural bi waxuma lay nak ñun waxuma la exode rural mais ñun xam nga Dakar moy suñu pari ñun ca kaw ga léegi nag bay jël gal bo ñuul Dakar do jël gal ñom du joggé fofu té li ñu am li ñu bëgg ñu koy am élargir ay seeni activité am nañ ñom sanni wuñu dara atelier de teinture yi ndox mi ci joggé dañ koy recycler lolu amuñu sax bassin yo xamné dinañ ko mëna recycler kon monsieur le ministre boobu modèle muy le modèle parfait bo bëggee développement communautaire ñuy vivre en association di am une vie collective di le modèle parfait ci lepp lo xamni soxla nañ ko Néna le ministre bo Andal, même même même direction bi nga xamni ngi ci sa voisin de de droite euh, monsieur monsieur le ministre damay wax sa directrice de la protection sociale ne ko protection sociale dafa war a wàcc ba ci base